internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. ñu ngi bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen nuyu fas yéene defal tënku xibaar tey mardi di 21 mars 2023 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. Ousmane ko nag démb jël na kàddu gannaaw euh, li fi xewoon 16 euh, mars bi ñu génn moom nag euh, xam la ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police rawatina mu ne waa BIP dañ ko sotti ab liquide mu ne liquide boo xam ne nag lu bon la te loo xam ne sax mu ne indil na ko ay jafe-jafe ci wàllum wér gi yaramam moom Ousmane Sonko it nee na mbirum évacuation boobu ñuy wax. pour daal ñu yóbbu ko bitim réew mu faju ji nee na loolu moom eh, fi mu eh, nekk nii eh, bëggagu ko mu ne nee na loolu daal kon nekkagul loo xam ne sax mën nañ koo waxtaanee fi mu nekk nii ba léegi it waxaat na ci li nga xam ne moom mooy mu ne hôpital boobu mu nekk ba sub tey bii bëgg na faa sax génn kon dellu ci këram te it noppalu xeex bi muy xeexit mu mën kaa wéyal Ousmane Sonko di wax ba léegi. Euh, détermination daal bi nga xam ne am na ko ak xeex bi muy xeex dina wéy di ko amal nee na nag li nga xam ne daal moom mooy euh, xeex boobu kon dina ko wéyal te du ca tàyyi di woon ak euh, ñii di sénégalais yi ñu ànd ak moom ci boobule xeex nee na sax mu ngi wootee ñu amal li nga xam ne moom mooy ay grève générale pour wan daal njiitu réew mi Macky Sall ne ànduñ ci ni mu yore réew mi. Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xurum Xaq fi mu nekk ni nag dañoo am retour de parquet li nga xam ne nag moom mooy seenub garde à kon dañ kaa prolongé ndax nag mujjeewuñu jàkkaarlook ki nga xam ne moom mooy attekat bi ba suba démb fi mu nekk ni kon dañuy wéy kon di leen téye ci garde à ñoom ñaar nag ñu ngi leen di toppee daal mbirum appel à l'insurrection ak nag violence ak it euh, Euh, li nga xam ne moom mooy atteinte à la sûreté de l'État département d'État bu Amérique ñoom nag dañoo amal ab rapport euh, seen rapport deux mille vingt deux jëmale ko nag ci li nga xam ne moom mooy àq ak doomu aadama yi ñu seetlu nag ne kon Sénégal euh, da ca xaw a dellu gannaaw ñu nag euh, wane ci lu ci mel ni daal ay xoqatal yu ñuy xoqatal ay nit ak it ay nit yoo xam ne dañu leen faat ay arrestation muy nit ñoo xam ne kon yoon daf leen di teg euh, loxo ak daal mbirum euh, corruption maanaam guerre ak mbuxum ak euh, luuba li ñuy nemmeeku ci li nga xam ne moom mooy euh, nguur gi loolu daal kon ñi nga xam ne ñoom ñooy département d'État bu Amérique ñaawlu nañ ko ci ab rapport boo xam ne kon amal nañ ko vingt 2022 ci àq ak yelleef doomu aadama fii ci Sénégal xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleeg Afrique euh, di Sud foofu nag lu toll ci cinq cent cinquante personnes lañ fa teg loxo teg loxo kon euh, ci ab manifestation kon bu fa amoon te li ko woote woon di ab parti radical bu gauche yooyu la manifestation nag kon ñu daal teg ca loxo lu toll cinq cent cinquante personnes ndax na dafa amoon ay yàq ak i sàcc kon li ni mel bu sukkandikoo ci ñi nga xam ne. ñoom ñooy autorité ya euh, ba tax kon ñu teg leen loxo te ñu ne nag dañuy ragal la nga xam ne dafa amoon ci atum 2021 amaat fa ca Mali nag euh, ka nga xam ne moom moo jiite réew ma di colonel Assimi Goïta moom nag euh, demoon na seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chef religieux wante it ay homme politique ak société civile bi démb ci altine ji ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy constitution bu bees ba nga xam ne kon moom la ñu war a teg foofale ca dëkk ba nga xam ne fi mu nekk nii nag kon takk der ya ñoo koy jiite ñuy xaar nag ñu jàllaat ci li nga xam ne eh, moom mooy pouvoir boo xam ne ay civil ñoo koy yore. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy eh, njiitu réew Chine di Xi Jinping moom nag démb ci àldina ji tàmbali na ab tukki visite officielle bu ñetti fan ca Russie ki nga xam ne nag mooy naataangoom Vladimir Poutine dalal ko ñoom ñaar nag. séq nañ ay waxtaan euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, relation ñaari réew yi ana naka la ñuy def ba jokkalante bi ñuy amal ci ñaari euh, réew yi ñu gën kaa ñoŋal gën kaa yaatal wante itam waxtaan nañ ci li nga xam ne moom mooy ab plan de paix chinois maanaam daal dox tànku jàmm ci diggante Ukraine ak Russie ci guerre gi ñu nekk te Chine bëgg koo amal loolu tam kon ñaari njiitu réew ya waxtaan nañ ca ki nga xam ne it mooy njiitu Chine invité na kon njiital Russie ngir mu dem foofu ca Chine xibaaru sport lañ koy jeexale démb gayndey Sénégal amal nañ seen entraînement bu njëkk fa nga xam ne moom mooy euh, terrain annexe bu stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo ñuy waajal nag euh, match yi ñu war a am ak euh, ki nga xam ne moom mooy Mozambique te mu bokk ci éliminatoire kaan bu mille 2023 ci ñaar fukki joueur ak ñeent yi nga xam ne nag convoqué woon nañ leen fukk ak ñeent ñoom ñoo fa teewagum woon kon démb foofale ca euh, stade annexe bu jam euh, loolu ñu tey ci ay xibaar seen teewlu leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf